Jackson ñoo nekk ci digg géew bi ndeysaan waaye ki nga xamante ni mooy xeeru ngor day daan moo ko war ndeysaan kooku ndey maake la ndeysaan ñoo ngi koy ñaanal. Ah. a yàlla a yàlla <laughs> Ya, ndeysaan ndey mbake waaw ya, ndiga ñaanal borom kërëm bobu yalla na doon borom kër bu rok ñig njiglaayam yalla suñu borom may ko njaboot ko barkel bu goor ak bu jigen ndeysaan di ko wax mu goor goor lu khalilullah xaritu yalla bi ndeysaan arbitre ba suuf la na diggante xeeru ngor neena la ku sa yaati jàmbaar do daw xare man la ilaha illallah muhammadu rasulullah nee la ah, pomtu morom neew billahi ku ko wedd xambal seet neena la ko mën ko mën ko ko mën ya ko mën ak son xeeru ngor ndeysaan ñoo ngay letoo mbay tëgg ñu ngi lay ñaanal jamm di ñaanal ñaanal xew bi ngay juul alxames yàlla na yàlla defal jàmm mbay tëgg ñoo ngi koy ziar di la ñaanal jàmm waaye kooku moo nar a dem Touba sa jeudi waaw waaw takk fa soxna takk fa soxna ngir inshallah inshallah rabbi kooku doomu yaayu jibi bamba la jibi bamba mu baax mi borom Touba tayib karo la ndeysaan mbay tëgg waaw waaw soxna jaara ñu ngi lay la ziar suñu yaay ji di wax gars yi dem leen jeudi inshallah ca ca ca mariage ba bu baale ñoo ngi koy ziar waaye ñoo ngay baral li nga xamante ne mooy leetoo bi xeeru ngor cokaas ko rek sa droite moom xeeru ngor ndeysaan ñoo ngi ci kawam xeeru ngor ak Jackson Jackson lu ñaari mbëri nar xam naa dañoo nar a inshallah rag ba dugg bu advocat do ko bëre waaw waaw xeex waaw Jackson waaw waaw Jackson dugal Jackson dugal na droite xeru ngor moo ngay mo ngay jokas xeru ngor dugal na droite Jackson ne ko waaye ñoo ngi ca côté saako ya Jackson ne ko lu ko doore ba gis faye ko tas xeru ngor xeru ngor xex ak Jackson lu mu bëgg la ilaha illallah genn na genn na la ilaha illallah ku batal na dal na ku batal na way Jackson Coumba dal na xeeru ngor daa dirisé daa dirisé ndeysaan waaye nara ndeysaan daa dem école école li Balla Gaye dem daan la joor lay laax la laa nee na day sëlmu ndax ci sotul kii la joor la kii defet la jugee kii defet kii victoire kii defetam géej waay la ko amee kii victoire am géej waay la ko amee ndeysaan ndeysaan Jackson ak ki nga xam ne moo di xeeru ngor Jackson 2 xeeru ngor Jackson 2 xeeru ngor numéro 2 dem naa ni mais ñëwaat Khalil dafa jël coup daa jël coup dafa jël coup xeeru ngor nee na ah, ko bu sufle lamb ji ca coach bi jógul dafa toog coach bi warul ko Wali lii la nati la waaye ñoo ngay signalé ndeysaan coach bi dafay jug waaye dafa waroon dem directement ardo ndeysaan waru woon ñëwaat fii ndeysaan day jug moom coach bi soxna jaara ba pare dañ ko mu dem ci ardo ñu xool ko ba pare waruñu koo sëlëm ndax xamuñu ko gaañ waruñu koo sëlëm mais tamit loolu ndeysaan boo xamee na li logique li logique lay wax daa war a génn daa war a noo ndeysaan mais non même boo jëlee am na koro saxat boo ko jëlee warul jël ko sa si gën a jege am nga droit mu may la ndox nga sa parce que mais loolu mais quel que soit alpha ak ko mën a dóor mais loolu du raison mun ko da ngaa war a génn loolu du raison mu tax arbitre ko da ngaa war a génn. ndeysaan coach baa ngi noonu nangul génn. coach moo koy coach siisu na ndeysaan. siisu na waaye ndeysaan. coach ba si na waaye ñi koy génne dafa mel ne xam ne li xew. règlement la lamb daam règlement. ndeysaan lamb daal moo bëri ay pexe. règlement la moo bari ay mbóot ndeysaan. règlement règlement la. waaye ndeysaan. waaw nañ nangul lu règlement bi wax xalil ñaari mbëri ñëwaat nañ ci bi ñëwaat na arbitre bi ngi wax ak ñoom waaye xeeru ngor mi numéro 2 ngor loxo ba xor xeeru ngor numéro 2 xeeru ngor raga ko gëna lu mën am des day indiwaat li nga xamante Jackson numéro 2 ndaanaanu bërëkat la ndeysaan loolu jaaxalu ko kooku turandoom la doonu la ilaha illallah ndeysaan dee bëre ba bëre fu dara newul ndeysaan subla wa lay Jackson 2 xeeru ngor numéro 2 ndeysaan ndeysaan ak xeeru ngor numéro 2 ndeysaan ñoo ngay ndeysaan Jackson xeeru ngor moo koy topp xeex ba waaw waaw daw nañ ko raak Jackson xeeru ngor numéro 2 na la ilaha na Jackson 2 Jackson 2 tey lii doon xeeru tey waaye lamb ji fu lamb fu yemoon day neex. bu fi yemoon xeeru ngor numéro 2 la ñuy doon. mooy moom ndam li sax. xeeru ngor numéro 2. ndeysaan arbitre bi sifflé waat na. xeeru ngor. numéro 2 Jackson numéro 2. ñoo ngay leetoo. xeeru ngor Jackson génnaan na génnaan na. laa ilaaha illallaah maasa lamb du yàqu. Jackson oh. ma sa lamb du Jackson am combat taktik deplasement lateral Jackson xeeru ngor ndeysaan jël songu na door Jackson ndeysaan ak xeeru ngor Jackson ndeysaan Jackson jël tànk ba la ilaha illallah la ilaha illallah waaw waaw ndeysaan si war yaa nga yóoxo de ñoo nga yëgal ndeysaan ndeysaan ñaari xale yaa ngay joxe ñoo ngay bëree ay ndaanaanu barakat lañ ndeysaan Jackson daa am jom xar ngor daa am jom ñoo ngi jëmbat fu la fayda waaw waaw jixaat di def leneen war xeer ngor sàmmal ma say tank xeer ngor numéro 2 Jackson 2 fogal xajul si ndaysan ndaysan ñaari 2 2 waaw waaw xeer ngor numéro 2 Jackson numéro 2 ndaysan raag nañ waye Jackson jambar la ndaanaanu bërekat la ndaysan waaye kenn xeer ngor ndaysan waaw waaw mais Jackson bo jalaté avertissement lamb ja jeex waaw Jackson numéro 2 ci deux victoires cette saison waaw waaw ngor joge ci défaite waaw waaw ngor ci défaite la joge Tyson Junior Jackson 2 dafa bëre daan Hercule bu conke sil jóge ci daan Lat Dior tey bu daane am 3 combats 3 victoire waaye sa waay du ko ko yombal du ko ko yombal de bu nara yomb bu nara yomb du ñu gis ak kaw yomb ndeysaan waaye bu mu ne combat Jackson à chaque fois. waaw dama ñëw ci digg géew bi. waaw di bëre combat déplacement latéral. waaw parce que bu jegee saako yi rek. waaw euh, ki nga xamante ne mooy xeeru euh, ngor numéro 2 mënu ko génnee. mënu ko génnee te boobaa bu jeexee moom la jox victoire moom xeeru ngor numéro 2 ndeysaan. waaw waaw Khalil ki nga xam ne moo di xeeru ngor numéro 2 rek mooy defoon mooy di lire combat. combat boo tollee fii adversaire bi da nga koy bàyyeeg combat bi. mais non mooy Jackson Jackson Jackson. tànk si tànk yàlla nar a dem. xeeru ngor ndeysaan hypercule boobu boobu daloon ndeysaan. bu daloon yaakaar naa ne lamb dafa lay yem. ndeysaan moom muy bëre day ñeeg te lamb du affaire di Jackson 2 Jackson lépp looy def rek ngay leer ndeysaan. day mer Jackson. waaye Jackson ndaanaan la. Jackson lépp looy def rek ngay leer. waaw waaw. waaye. daanu yooru. daanu yooru jàppante nañ. jàppante nañ Jackson xeeru ngor jappanta nañ lan mo nara xew bokki yi Ngor mo leen won ginaaw Jackson moom ngeen jàkkaarloo non Jackson mo ngay dor ci souf ndaysan Xeeru Ngor Jackson mi ngi dugal ay perkit waaw waaw dama melni ne ba dafa changé ndeysaan Jackson mo ngi commencé yew ndaysan Jackson da commencé yeewu ndeysaan lay laa xelala Xeeru Ngor Jackson xeeru ngor xeeru Jackson ndeysaan Jackson bañ na ndeysaan ñoo ngay bëree ndeysaan Jackson xeeru ngor ndeysaan ñoo ngi ca gato saaku ya waaye ñoom ñaari mbëri sëgg nañ ndeysaan roofoo nañ saan ndeysaan waaye Jackson am na ca loxo droite ba. mais kenn du mais kenn du Jackson. ndeysaan tee na bu dëgër ndeysaan. waaye xeeru ngor jàppul fenn ndeysaan. ndax xeeru ngor ndax nu mu taxawee baax na. xeeru ngor su ma doon may moom damay jéem a wëlbatiku jéem ko bombe ay coup lamb ji jeex ñu jox ma sama victoire ma dem. waaw mu mu seere lamb. Jackson. xeeru ngor numéro 2 Jackson numéro 2 ñoo ngay bëree xeeru ngor moo ngay roxo si suuf waaye Jackson numéro 2 moo ngi naan teg di ko déglu lan la nar moom Jackson numéro 2 la moo ngay hébercule la ilaha illallah eh ndeysaan ndeysaan Jackson Jackson daanaan la xalal xeeru ngor daanaan la ndeysaan waaye kenn du kenn du Jackson ndeysaan Jackson la woon digganteem ak Lat Dior nii la woon nee naa ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare man la ilaha illallah muhammad rasulullah ku sa yaay di daw xare arbu suuf la waan na waaw Jackson numéro 2 ak xeeru ngor laa ilaaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ci benn instant bi Jackson fexe na ba Xeeru Ngor jëlaat na deux avertissement wala instant bi waaw 4 2 4 3 4 3 la 4 3 la Jackson nanit la du mi ngi gérer combat bi waay nelawul waay nelawul yaw yow te ndeysaan dafa am jom waaw waaw waaw waaw gaynde du ko tab lii kuñ topp doo coomo ndeysaan da koy judduwaale ndeysaan ñii kuñ topp waaw waaw nga garmi nga ndeysaan mësul nekk nga xam moom Jackson waaw waaw waaw waaw ñoo ngay ñoo ngay leetoo boo koy Jackson numéro 2 ñoo koy benn bennal mbokkam ndayam Jackson senior di ko côté côté di ko yàlli yàlli laaxi laa di ko ñalli ñalle ko mooy mooy ndeysaan Ousmane Sall nekk si caméra man kooku lu mu caméra wul baaxul moom Omar Sall mu baax mi kooku daa am jom lool xali ma wax la benn affaire ndeysaan Xëzal dooleem lay sango dool dooleem lay sango Omar Saliou Omar Saliou Mbadji mu nooy lay sango ndeysaan kooku série bi ndaala classement 4 4 2 ndeysaan def la ka neex la ka saf waaw waaw dirigé dirigé Xeeru Ngor de l'avant ndeysaan Xeeru Ngor Jackson waaw waaw xeer Xeeru Ngor Jackson Xeeru Ngor waaye sunu xarit bi mbay tëgg mbay tëgg maa ngi koy ziar waaw waaw jàpp na daw na yow la ilaha illallah épirkit boobu daloon épirkit boobu daloon xale lamba ja fa la yam kooku nee na leen nee naa leen inshallah jeudi jeudi mbay tëgg moo dañuy dem ba Touba waaw waaw ñaanal ko soxna jël fa soxna ndeysaan may dëgg borom mesere ak am jom waaw waaw nangoo liggéey waaw waaw am fulla ak fayda ak personnalité ak maanaa ndeysaan xeeru ngor Jackson waaw waaw xeeru ngor dafa bëgg seere la ilaha illallah eh eh waay waaw waaw allahu akbar la ilaha illallah ndeysaan ndeysaan ku sa yaay di jàmbaar doo daw xare laa ilaaha illaa Jackson ndax eh. oh. na combat ba Ama yàq na combat ba laa ilaaha illallaa oh arbitre ñaari mbër yi bëri nañ Jackson bëri na oh waaw non arbitre bi waay oh Jackson moo ngi noonu sëgg ndeysaan daa bëri moom Jackson ndeysaan